une première au Sénégal. ce n'est pas une première au Sénégal déjà en 1967 am na élection yu nga xam ne waroon na am Sénégal élection présidentielle. 1967 1967. président Senghor rendaloon na ko élection yooyu décembre la waroon am le premier décembre 1967 mais après février la mujj am en 68 donc ce n'est pas la première fois. juumoo du 1963. peut-être 1967 juumoo élection yu lu leer nañ la. donc loolu il faut que nit ñi xam ko xam nga nit ñi dañuy tëb rek di wax ne loolu mosul am Sénégal loolu amoon na Sénégal te affaire bi. mais même bu fekkee am na après je vais vérifier les dates mais même bu fekkee am na aussi parce que on peut pas comparer le Sénégal de 67 au Sénégal de maintenant avec les acquis démocratiques jamono jamonoy parti unique la woon Senghor moo nekkoon buum di bumi alors que entre y a eu des évolutions a perdu des élections nangu lii nag du président Macky Sall soo loo ko si wax da koy tooñ. il a été à la base. moo njëkk a wax waa PDS ñoom ñoo bind. waa PDS ban pouvoir la ñu am. waa PDS mais ñoom pouvoir législatif assemblée nationale fii dafa am ñetti pouvoir am na pouvoir exécutif am pouvoir législatif am pouvoir judiciaire. ce que ne PDS ils sont combien. su sur cinq députés il leur a fallu un soutien des députés de la majorité la majorité qui dépend du président de la République loolu laay wax en fait. mais loolu aussi dafa war a am. Mhm. parce que lu si mel ni ñu nga xam ne ñoom ñoo war a àtte suñu leen tuumalee kilifa bu toll ni président de la République moom du seetaan ëllëg Sénégal leneen lu di fi xew loolu waral moom mu bëgg a mbir yi leer maintenant moom waxul ne def leen lii wala def leen lële député yi ñoom ñooy représentant du peuple. ñoom suñ demee bañ ne wax dëgg yàlla élection yi jamono ji ñu bëgg mooy ñu toxal ko pour que ñëpp ñu nga xam ne ay candidat leen ñoom ñëpp ñu mën a bokk ci élection yi. mais est-ce na ci ak yéen. loolu loolu man dama gis ne wax dëgg yàlla ñëpp ci war a ànd.